أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem yéen ñi seetaan ñëpp euh, bu ngeen déggee ayatul quraan yooyu da ngeen daal di xam ne bis bu mag bis bu tedd agsi na bis boobu mooy ban mooy bis bi nga xam ne mooy bisub alxuraan bi ñuy defal sëriñ moor mbay Cissé te xalifaam bi di sëriñ Abdul Ahad jot ndigal ci amadul Mouhamadul Muntaka mi fi nekkal sëriñ Touba noo ngi ñaan suñu borom dolli ko gudd fan te dolli ko ak wér waaye itam jot ndigal ci kilifaam sëriñam sëriñ Sidi moom sëñ Abdul Ahad ñu ñaan suñu borom yàggal leen fi te wéral leen bis boobu moo dellu si war le 31 décembre incha allahu sëriñ baa ngi koy yëgal mbooleem jullit ñi di ko yëgal mbooleem ñi nga xam ne it ñooy ahlul quran ñëpp sëriñ baa ngi leen koy yëgal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Sénégal yi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ñëpp ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen sant te di leen jaajëfal di leen balu ak di leen baal àq di ñaan suñu borom mu boole nu jéggal. kon ni ngeen ko defee rek noo ngi santaat yàlla bu baax ci bàyyi gi nu fi suñu borom bàyyi ba bis bi ñu baaxoo defal Serigne Mor Mbaye Cissé bis boobu war a agsiwaat yàlla dogal mi ngi tolloog le 31 décembre ci lañ baaxoo di ko def ci at mu nekk bis boobu nag di bis boo xam ne amuñu benn bis bu dul moom mooy suñu bis nu di ci woo mboolem képp ku yàlla bind ku di jullit ak ku dul ab jullit sax ndax sëñ Mor moom ñëpp la fi nekkaloon moo tax ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyi wuñu kenn man nag li ma baaxoo di wax ci ñi nga xam ne ñi war naa koo mën a wax ak ñoom loolu rek laay fàttaliwaat dama leen di faral di wax ne leen bis bii képp koo xam ne jëralu la nga jóg ñëw ci bis bi bis boo xamee ne yëng nga ne faatu naa génn àddina bul ñëw wala soo ñëwee ñëw nga ci niiw bu la jéppi ndax man bis bi rek laa am ci saahir ak ci baatin kon ñi nga xam ne ay bokk lañ ñi nga xam ne ay xarit lañ ñi nga xay ak njaboot lañ ñi nga xay ay soppe lañ ñun ñëpp ci biir réew mi ak bitim réew bàyyiwuma kenn bàyyiwuma fenn bàyyiwuma ñenn maa ngi woote ñëpp bëgg ñëpp teew si fii ci bés bi ndax xéewal gi nga xam ne gi moo fi am ci barkeb sëriñ Touba Xaadimu Rasuul barkeb sëriñ Mor Bay Siise barkeb alxuraan xéewal googu dañ koo yéene ñëpp yéene nañ ko ku yàlla bind moo tax bu ñu sañoon nag kenn ku nekk rek danga fi teew si ba xéewal googu ko man cee am man cee xéewlu bu baax a baax a baax a ñi ngi ñaan nag yàlla ci barke borom Touba barke Serigne Mor Mbaye Cissé Serigne Abdoul Ahad Cissé mi nga xam ne yàlla dogal na moo toog tey ci buntu kër Serigne Mor Mbaye Cissé ñuy ñaan sunu borom mu bàyyil nu ko fi lu yàgg lool fan bu gudd wu ànd ku wér te sunu borom musal ko ci am ndog saaxir ak baatin defal ko mboolem njabootu Serigne Mor Mbaye Cissé gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ak képp ku ci aju ci saaxir ak ci baatin noo ngi koy ñaanal ñëpp di ko ñaanal nag mboolem Sénégal gépp Eh, di ko ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal Serigne Sidi waaye di ko ñaanal mboolem kilifay diine lislaam yi ci Sénégal yëpp ak yi ci bitim réew yëpp ndax sëñ Mor nag sëñ Moram ñëpp la moom bàyyiwut kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn. dañu xam ne bis bi ren sëriñ bi def koo dara jaal ñaari jëmm yoo xam ne yu jaxasoo woon ak sëñ Mor Mbay Selañ di ay wëllëre yoo xam ne yu jàppoon sëriñ bi sëriñ bi sëñ Mor jàppoon leen sëriñ bi di mottali kóllëre googu muy alaaji Seex Ñang ak alaaji moom Moodu Mbeng ñooñu la sëriñ bi dara jaale bis bi ren man nag sama woote maa ngi koy jëmee ci administration tàmbalee ko ci son excellence le président la république alaaji Macky sal ak soxnaam bu ma fa jógee di ko woo gouvernement bi yëpp di ko yëgal di leen ci séentu bu ma fa bàyyi ko nag maa ngi woo le gouverneur de la région de Diourbel xam ne fi lañ koy defee ak monsieur le préfet du département de Diourbel ak membre CRD bi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéeyam yëpp ci région bi di beral woote nag daara moderne yi nga xam ne yi gouvernement du Sénégal tabax na ko ci réew mi te yàlla def na mu cëral ñu ci ñu am ci benn daara fii ci Jurbel ñu ngi koy tabax yàlla daa dogal yëggagul daara moderne yooyu nag dinaa ci beral daara yi nga xam ay privé lañ muy pamot daara moderne privé kan ne ca bopp ba seen collectif di sëñ am ni Moustapha Diop ca Touba maa ngi koy yëgal di sàkku ci moom wool ma daara moderne yëpp public ak non public ndax sëñ moor comme ni ko sama baay waxee léegi sëriñ Mor ñëpp la woon ñu ngi ciy woowaa alxuraan bi di ci woowaa diine ji yëpp di ci woo sax ñuñ bokkulu diine. ñun wàll bi ñu féete nga xam ni ñi ngi bokk ci acteuru société civile bi képp ku fa nekk ñi ngi la cay woo. administration Diourbel bi nga xam ni aussi à chaque fois ñi ngi nekk di liggéey ak ñoom. dale ko ci monsieur Ibrahima Fall gouverneur de la région de Diourbel di suñu xarit di suñu lépp ñi ngi koy woo ci suñu bës bii nga xam ni sëñ Mbaye wax na ko moo ñu gën a ñor nag ci bës yi ñi ngi ko ciy woo di ci woo monsieur le préfet du département de Diourbel di ci woo képp koo xam ni yaa ngi wëy ci administration mais également ñi ngi koy yëgal euh, képp koo xam ni acteur politique nga ci Diourbel ñu ngi koy dooree ci madam le ministre Fatou Diané di ko wax DG yi fi nekk DG Moustapha Guèye DG Sayer Diop monsieur le ministre daam jóob képp kuy yëngu ci langue politique gi moo xam yaa nga ca kujje ga moo xam yaa nga ci mouvance présidentielle ba ñoo ngi la koy yëgal bu baax a baax a baax a baax macha allah mais également fàtte wu ñu waa diaspora bi. waa diaspora bi ñoo ngi leen koy yëgal ñoom it seen teewaay rafet na ñoo ngi leen koy yëgal euh, waaye it ñoo ngi beral cant ak ngërëm euh, ñi nga xam ne nii ñooy taalibey sëñ Mor yi nga xam ni dañoo tënku ci ak kuréel te saa suñu xëyee ci sëñ Mor la ñuy xëy saa suñu gontee ci sëñ Mor la ñuy gont di wax sëñ Laat ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm di wax ni ku fi teew rek ku fi teew ngir yow teew na fi ngir sëñ mbay si Cissé kon nag ñu ngi lay sant di feddali suñu sant ak suñu ngërëm ci yow ñun njaboot gu jigéen ku sëñ Mor May Cissé. ci jataay bi it ñu ngi fàttaliku El Hadj Balla Ndiaye di ko ci rendre hommage itam ci bis bi di ko ci ñaanal jataay bi da ko daan ñëw bàyyi ko Kaolack bàyyi yitteem yëpp ñëw teew fi ku ne xam ne ne sëñ Balla ak dundam ak ak akub yëngoom akub dalam lépp sëñ moor la. kon noo ngi ko ci ngi sëñ maa ngi ko ci rendre hommage eh, ci bis bi danañ ko ci ñaanal fàttaliku ko ci. di leen woo ci turu sëti sëriñ Mor Mbaye Cissé yi nga xam ne eh, man mbëgguma ci ñu ma si mag sax ñu ñu ëpp man ñoo ñoo xam ne ñoom féet ak ma ñoo si gën a bëri eh, ki ci magoon yàlla ko yàlla doole yërmaane ak njëggal waxtu wi daal bi ma fi toog ci turam ci laa doon wax waaye jiitu na muy sëriñ Cheikh Cissé. jamono ji nag ku ci wax sëriñ Moustapha Cissé mu sëriñ Abdou Assis Cissé moo ci mag kon maa ngi leen woo ci turam moo ci mag ci ñëpp fekkee ci jigéen ñi sëñ Mor juri seen waajur yu jigéen ki ci mag ki mag ci sëriñ ñëpp mooy soxna Mati Jigal ki ci mag ci góor ñi jur seen waajur yu jigéen mooy sëñ maari Jigal maa ngi leen woo ci turu sëñ Moustapha Cissé soxna Mati Jigal sëñ maari Jigal ñu ëmbaale ñëpp ndax mënuma nekk fii di lim leen woo ci turub Eh, di leen woo ci bisub jàngalekat alxuraan nga ku tedd ka muy Serigne Mor Mbaye Cissé ndax Serigne Mor daa bokk ci ñi gën ci kaw suuf ndax yonent bi moo ko wax yonent bi moo ne xayrukum man ta'allama alxuraan wa 'allama moo ne ki gën ci ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan di ko jàngale kon kon bisam bu leen wooyee rek war na ci bisu alxuraan. ci turu turandoo yi nag laay wax bu sama kàddu daanoo foofu. yéen trondoo yi ñuy dégg ak yi ñuy seetaan amuñu lu may bisub sëriñ Mor Mbaye Cissé ci war nañ cee sant yàlla bu baax ndax képp koo xam sa waajur tuddee na la sëriñ Mor Mbaye Cissé ca nga xam ne li gën ci àdduna la ko yàlla dénk ak sëriñ Touba boo déggee sëriñ bisub sëriñ Mor bay Cissé foo mën a nekk ci àdduna war ngaa jóg ñëw ci war nga caa jëf war nga caa ñaan ñaanal ci ki fi nekkal sëriñ Mor si Cissé ak njabootam sëriñ Mor si Cissé gépp saa borom guddal seen fan wéral seeni i cër. nekk ci waajtaayul bis bu am solo ci nun màgg ci nun lool rëy ci nun lool muy bis bi ñuy defal sëriñ Mor Mbaye Cissé fii ci daara ji di ko ci fàttaliku di ci euh, def ay ñaan di ko jëmale ci jëmmam ji di ci def ay ñaan tamit di ko jëmale ci suñu jëmm yi ak mboolem waa réew mi. muy bis bi ñu ñuy baaxoo def la le 31 décembre bii ñu jëm di ci woo mbokki taalibe bi yëpp di wax nag ci kàdduk ci turu euh, day euh, kuréel gi ñuy woowee Baye Fall Serigne Mor Mbaye Cissé yi. bis bis la boo xam ne moom la ñu am képp koo xam ne nii ñëwoo ci daanaka lépp lu nu ne rek jirul nga di ca ñëw man de noonu ma ko waxee man de ni ma ko waxee moo di xàmme naa ñëpp bis bi daal laay woote képp koo xam ne feeñ nga ci génnewuma ci kenn. wala sa ndaw ñëw ji loo yëngal lu mën a doon lu lu mu sori sori dinaa ci jàpp dinaa ci dikk képp koo xam ne gisuma la ci ah loo mën a woote te man sama yoon ñëw ji lu ma ci jéem leen ñu ngi sant njaboot gi tàmbalee suñ suñu bi nga xam ne moo topp suñu kaw suñu ginnaaw ak sëriñ Aliou Cissé ah, soxna Penda ñu ngi lay nuyu dégg nañ kàddu yi yow yaa yore kàddu jigéen ñi say mag ay say rak kàddu yi nga wax rafet na. lool bis bi nag comme ni ngeen ko waxee dañ koo dara jaale alxaaji Cheikh Niang Côte d'Ivoire lañ ko njëkk a xamee waaw alxaaji Cheikh Niang yaakaar naa ne kenn du ko laajte moom sëñ Omar Niang mooy baayam sëñ Omar di rek sëñ Ma Niang di seexi sëñ Touba nga xam ne ci Daaru Xudoos lañ féete naka jekk alxaaji Cheikh jàppoon magam sëñ Baara def ko kilifa nga xam ne moo doxoon diggante ak sëñ Cheikh Mbàkke doxoon diggante sëñ Mbàkke soxna Lo ba ni muy wàcceeb liggéey mu dajeeg sëñ Moustapha delluwaat ci tamit dara jaale ko sëriñ <clears throat> Modou Mbeng moom itam sëñ Mbay mën leen a wax ci moom lu bare bare waaw taalibe sëñ Isaa jan la yàlla déngoon ko wërsëg wu yaatu lool yàlla xéeroon ko ci nit yàlla yi waaw ndax sëñ Moor jamono yi nga xam ne ci mbaar la ne waaw mbaar moo ne buy taw téere yeeg yëpp yàqu moom moo njëkk xalaat defar néeg yi nga xam ne yu mel ne yi ngeen xamoon ci kilifa yu baax yi kër sëñ Moor Musaa néeg yu baax yooyu yu jafe yooyu moo la defoon sëf ko ci otoom ñëw defal ko ko indi fi ay doomam am na sëñ seex Mbeng ak Alaaji ak sëñ <clears throat> Taala kon kooku faaw war nañ ko fàttaliku ñaanal leen ci di gërëm di njaboot gi yëpp waaw ndax daara ji ci turu sëti sëriñ moor yi ajjuma bu jot daanoon daje fii jàngal sëriñ moor fukki kaamil addiyee yu sell te loolu man ci jamono sëñ Bass laa ko tàmbali ndax dadaa def bu weer yu xëyee mu dajale daara yi kenn ku ne jox la nisif ñu jàngal sëriñ Mor ak sëñ Yaasi ak jullit ñi ñëpp waaw ci ayatam yu mujj nag man man boo ma joxoon ndigal ajjuma ju ne booba sax jafe na damaa bëgg ñu ñu ma koy def par ajjuma waaw bu dee ajjuma ju ne fukki kaamil yaakaar naa ne ñeenti ajjuma yi ñeent fukki kaamil sëñ Muntaxa mi moo koy jiite ak ñoom sëñ ak sëñ kii su noppee bu ñu jullee àjjuma ba noppi mooy leen jàngaleen seen waajur yi juróom-ñaari kaamil sëriñ Bas ak sëriñ Abdou fasaali ci jullit yëpp kon na nga xam ne àjjuma ju ne fukki kaamil juróom-ñaar dana ko jàng fii yu sell. donga yi génnewul nit ñi waaye nag il faut ngeen a topp ci ñoom ndax ci la bu leen yàlla jox sëriñ moo jox leen ko man joxuma leen ko sëñ moo leen ko jox kon yéen tirandoo yi man de gërëm naa leen sant naa leen gis naa seen taxawaay rafet na lool mbir mi daal mbir la moo jant la du laal euh, moom du laal suuf boo xoolee da nga séen boo ci bëggee jëriñ da nga jëriñ bërigo ci mbarta la man mu ma ko samp ko waaye dootul daanoote moom li nu bëgg moom muy dem ba faaw rek waaw ndax euh, mbir moom boo bëggee mu dem kenn ku ne lam ca moom da nga koy jox. ñëpp sëriñ baa ngi leen ciy woo mu ngi ciy woo itam mboolem kilifa yi diine lislaam yi itam. ci moo xam képp koy wax asadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah sëriñ baa ngi la ciy woo waaye mi ngi ciy woo it ñi nga xam ne dañoo am kóllëre ak sëriñ bi itam di waa jàngu bi sëriñ baa ngi leen ciy woo ndax ay wóllëre sëñ moor lañu woon daan fi ñëw kon sëriñ bi it mi ngi ciy woo ñëpp daal bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn waa njaareem nag nañ xam ne bis bi moom seenu bis la kon sëriñ bi da leen a nekkal ci biir kër gi waaye moo yéen a seq bis bi ndax sëñ moor moom léppam njaareem la woon kon nag waa Njaareem ñoom ñoo jiitu ci bis bi rawatina nag sëñ daara yi nga xam ne ñoo moom ñoo bokkoon liggéey bi sëriñ bi nee na bis bi moo yéen a ko seq kon sëriñ baa ngi ciy séentu ñëpp le 31 décembre incha allahu ñi ngi ñaan képp koo xam ne ñëw nga ci bis bi euh, sun borom ci barkeb alquran barkeb sëñ Tuubaa ak ndigal li nga xam ne moo sañcoon kër gi lay sag bëgg sun borom ñoddi ko ci dara darajee sëriñ bi ba teg ko ci sa loxo ni nga ko bëgg saaxiran wa baatinan أنزلنا عليك القرآن لتشخى إلا تشكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض وسماوات العلى الرحمن على العرش استوى